للمصطفى رأيت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما doki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di ñaanal al cheikh Mouhamadul Muntaqa al Khalifa sunu borom yàggal ko fi ba naal yi mu naalal lislaam yépp mu àggale ko di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi ak kilifa diine yi di nuyu ak ziyaara Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Cheikh Mahmadul Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo woote bis bii tey di ko defal maamam soxna jaaratullahi maam bu Bousso di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom la feggool yépp nekk njabootu Serigne Touba noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara bu baax di nuyu ci jataay bi it njabootu Serigne bu jigéen ñi maa ngi ko jaare soxna maam Fati Mbakke moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahad waaye soxna Kiné Cuun maa ngi koy nuyu bu baax ak soxna Sayda bu Caam ak kilifa yi fi nekk yépp sëñ ma Paté Mbay ñoom ñi fi teewal ma dikke ñaam Euh, ñu wax ne kon maa ngi tàmbalee ci Serigne Cheikh ummi mi teew ci jataay bi moom Cheikh Mahmoudul Fadal moom xaadimu rasul Serigne Cheikh ummi noo ngi koy nuyu di ko ziar muy kilifa bu baax bu bëgg Serigne Touba di ko woyof di sant yàlla di nuyu sunu waajur yi nga xam ne ñoo ne ci béréb bi Baye Modou Baye Samb ak Baye Serigne Sylla Baye Fall ñu ma tegee ci ñoom nuyoo bi rek jàll na ci bokki taalibe yi fi nekk yëpp mu mel ni Cheikh Abdou Lahad dafa sakku woon bu ñu ñëwee ci bis bi ñu fàttaliku nafar dunduk soxna su sell soosu di soxna jaaratullahi ma Mariama Bousso borom dund googu nga xam ne dafa gàtt ci zahir waaye nekk dund gu fees dell guddi koo xam ne nit mën naa dund téeméeri at wala mu dund junni at te du bàyyi jeexintal yi nga xam ne moom la soxna jaara bàyyi ci kaw suuf ndax ba léegi aw turam ak ay jëfam bu ñu ko tuddee dafay mel ni mi ngi nekk ku teew ci zahir soxna soosu nag ku mat di nafar ak dundam la ndax mooy delluwaay bi gën a wóor di royteef boo xam ne yemul ci rekk jigéen war koo roy waaye góor war na ko roy jigéen it war na ko roy ndax dund gu barkeel gu sell gi mu doon dund fanweeri at ak ñett la dund ci àdduna te béréb yi mu jaari du wuute ndax koo xam ne ma nga feeñ jamono ca mbusoobe ga ca jolof mën a tàmbalee ab liggéeyam bawal muy mbakke wàcce ab liggéey saalum muy poroxaan dëkkaale ak yàlla boromam bi ko yàlla tànnalee mbakkeeg mbusóobee muy askan wu sell woo xam ne boo toppee silsila gi ma ngay dellu ca sayyidatuna Fatima ndax day day day jofi ca Asan ak Useynu kon ay shurafa lañu sharafa gu wér a wér la am ci ba toppee seen màndarga waaye moom de ba mu feeñee ci 1833 génn àdduna 1866 diggante boobu lan moo fi dunduk soxna jaaratullahi ma Mariama Bousso soxna jaara bu ñu bëggee xam ak dundam nañ dellu tuuti ci waxi Cheikh Mahamadul Basir Bakke mi nga xam ne portale na soxna jaara ci portale bu mat ci xas yi ci téeréem boobu tudd minanul baqil xatim sëriñ bi dafa wax ne sëriñ Basiiru ne soxna jaara de dafa nekkoon jigéen ju sell mooy saalixa la woon mooy ku sell waaye afifa la woon nekkoon ku fegu nekk kook diine ku jébbal yàlla boroomam léppam ku taxaw ci warteefi diineem waaye ku taxaw ci warteef digganteem ak ki ko yàlla booleeloon muy sëriñ Bakke Mor Anta Sali sëriñ Basiiru tegaat ne وكانت ربي أولى لها على المروءة والطهارة والدين وكثيرا ما تحكي عليهم حكاية الصالحين وتقول لهم من دأب الصالحين قيام الليل سيرين بشير لنا سخنا سي يموتون رك تي فغوغا اك سامغا اك تخواي با واي دا تيا بولي دي يار اك نجابوتام تي لين دون يار مانيوم روس الله اك ديني daa dina bariwaana lu mu daan nettali ak njabootam melay gaay yu baax ya nga xam ne soxna jaara bu ma saa toog njabootam lan la leen di wax min dëbi saalihin qiyaamu layl mooy gaa yu baax ya de lañ leen xàmmee woon lañ leen si jikko mooy taxaw guddi di naafila nga xam ne loolu ci ñawuk sëriñ bi ak teela a ràññeem moom Cheikhul Khadim loolu la teel a dégg soxna jaara di ko wax ba bu guddi masaa jot te booba sëñ bi dalagul sax jàng ci zahir waaye bu guddi jotee ba nit ñi tëdd sëñ bi moom danaan temm ci ëtt bi ba fajar nga dégg waxi soxna jaara jooju loolu moo tax benn daal mu jox ibnu mualla li muy tagg sëñ bi andi na ci loolu wax ne saada tiflan wa asruhu laysa fihi man yusalli bi sabati awaabi wax ne sëñ bi kat ba muy nekk ab sang juróom-ñaari at lam ndax ci jamonoom ko am juróom-ñaari di taxaw dinaa fi dem kon soxna jaara dangay ngay jàpp ne kon bokk na ci ñi taxaw di soññee di wax nan la nit ku baax di taxawee noonu mu ko déggee woon Jaara borom Sam téeméeri rakk la dan fi la kon soxna jaara nituk diine la ku sell la ku teel a wattu alxuraan la ku teel a géeju ci xam-xam yooyu diine yi la waaye amaat keneen ku ko jàngale ci way am solo misaal ci kan mooy soxna jaara mu melni dalay wax ne bo beugé xam soxna jaara lan modi mandargal mu le lahal ala ahadin mun salaatun duaau sixfa xayaaun wa axlaaqun muhadabatun taybul kalaami wa ma bil qawli miktaara mu ne boo xam soxna jaara dëkk lan moo di jikkoom julli ku mën julli la mënoon a woor la mënoon a ñaan yàlla la ku mënoon a la waaye bokk na ci di koy soxna jaara sabu te mooy muñ ku mënoon muñ la muñ ci lori nit ñi waaye muñ ci natt bu yàlla teg ci kawam sëriñ sa deex bu sa moom sëñ Mulaay yàlla na ko yàlla doon leer mas nama ne na soxna jaara de daana rooti ci kër gi donga yi di ko njoolu mu jëm ci daara ji ba dox mi jeex waaye du dellu ca kër ga di di taxawal dara te du ne donga yi dañoo naan ba manti nga xam ne nee na jamonoom sax ku la bëgg a wax dara danaan bul ma yan fépp jaara gi mu ne kon muñ moo nekkoon jikkoo waaye xaya moo doon ku bari kersa moom soxna jaara te yonente bi alayhi salatu salaam nee na inna mi ma adraka min kalaami nubuwatil ula fa ida lam tastaxi fasna ma chita mu ne nit ki bu fekkee ne amul kersa na def lu ko neex soxna jaara ku bari kersa la dañuy wax ne bokku na ci kersaam ak i tegginam bu masaa saa ubbi buntam seen sëñ Mbakke Mor seli di génn day sukk bati wóomam ba sëñ Mbakke Mor jàll mu door a jóg wa axlaaqul muhaddaba nag mu boole ci jikko yu rafet jikkoy sang ci biir aw nekk ñim nekkal dëkk ak ñoom ak ci biir ñim bokkal jamono jëflante bu rafet bi mu doon def ndax jaamu yàlla ak ibaada day ànd mu am asana mooy tax mu mën a mat soxna jaara ci dëkkaloon rek daana rabbulu ay chéri dënk bu ko rabuloo ba mu rafet bu génnee bu koy joxee ku mu koy jox danaan la soxna Anta Ndiaye la ko jox muy way juru Cheikh Sidi El Mokhtar maam Cheikh Anta te soxna Anta du ko yëg soxna Jaara buy séddale chéri yi bu la joxee danaan la soxna Anta Ndiaye la ko wax jox nga xam ne boo génnee dajeeg soxna Anta soxna Anta danaan la boo ko nee mbàkke yéen rafet na mu ne loolu de Mariama Bousso lolou moy jikko ju rafet ji nekkoon ci akhlaqul muhaddaba tibul kalaami ku teyon ay wax la ku dal ay wax la wama bil qawli mikdara mune bari wuton ay wax mune way nan la soxna jaar don dunde mune ne allaylu qaa'imatun wal yawmu sa'imatun turaqibu rabb ijlalan wa ifqara bu gudde bu nit ñi nalaw ma ngay taxaw di nafila ma ngay jàng alquran bu bëccëgee mi ngay wor lan la ci jublu nak turaqibu rabb ijlaalan wa ifkaara di fuglu yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci di ko xalam ak di ko màggal waaye talaasumul bayt xawfan la baariaha bi taatin wa ibadatin wa afkaara di taqoo ab néegam moom soxna jaaratullahi ma mariam buso lan lay taqoo ci néegam mooy wéetal yàlla di ko jaamu nga xam ne kaamil bi moo nekkoon wérdam moom soxna jaar te ay nawaafilam boo ko boolee ki faraidam juróom fukki julli daana ko taxawee ci bis bi moom soxna jaar moo tax dégg nga sëñ Moussa Kane day boole topp ndigal ak topp ab sëriñam topp yàlla bu wér maam jaaratullah loolu doy na sëkk caw kañ day boole topp ndigal ak topp ab sëriñam ak topp yàlla bu wér maam jaaratullah mu ne waaye bokk na ci ay meloom mooy tuuti wa tut'imu miskinan wa sa'ilatan tuwassiru rahma ixfaan wa izhaara ku mënoon a leele la moom soxna jaara dafa daan joxe ñam ku xir la woon danaan jox way ñàkk yi way jirim yi way laaj yi waaye tuwasilu ra ixfaan wa isra daana jokk ak bokk ci lu nëpp ak ci lu feeñ bokk na ci melokaan yooyu Serigne Bassirou indiwaat mooy mën a denc mbóot soxna mën a denc secret la ku mën a denc mbóot la ndax ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba nafa anallaahu barakaat yi boo àndeek moom ak ni ko yàlla defee nitu kiimaan waaye soxna si ku bari woon mm, ak buñ la sëñ Bachirou nee na bu ma saa ànd ak sëriñ bi mu ne ci ginnaawam bu sooboo mbedd dégg ca mbedd ma ab yëngu boo xam ne lu ñuy tere la nee na nu muy def infaala infaalan shadida sëñ Basiiru nee na sëñ bi day baj baj ci ginnaaw soxna si ban jàpp ne dana gaañu nga xam ne dañuy teggi mbedd ma ba déggatul yëngu ba mu door a dal kon koo xam ne bi ngay nekk ci ànd ak sa wayjur boo déggee ay neen ak i caaxaan tutuloo am jàmm kon doo dem ba liggéey ba lépp daj nga defee ne ay caaxaan may na ca nit dara kon loolu mën a denc mbóot la ci soxna jaara mu mel noonu moo tax waykat ba eggal na ko tilka safiyat ardallah sumataha dunya bi uxra bi alaanin wa israara soxna su sell si yàlla dafa gërëm ay jëfam dunya wa uxra adduna kalaaxira defe naa adduna boo doon natt ñi ci way ëpp ay turandoo soxna jaaratullahi maam Mariama bu sa ca lay bokk waaye ban fàll la séete ci turandoo mooy doon sa bàjjan boo xam ne nekkatoo fii ci zahir te kun la duppee ku ne kese biir kër muy poroxaan daaraa nga fa joo xam ne bàjjan bu fa ñëw sa bàjjan bu fa ñëw sa bàjjan yor la num mu la yore mooy jàngal la alxuraan ñaata maam jaaraay génne poroxaan di mokkal alxuraan ñaata million la ñuy dépensé par weer lu mat 18 million par mois pour dundal soxna jaara ya fa nekk ak waddu leen ak sàmm leen ak jàngal leen kon moom Sàmba Jeen la boo xam ne ñetti ay turandoom kenn ku ci nekk te ñi xam ne xam na musaabaxatul xuraan yi am ci réew mi ñaata yoon la ci ay maam jaara jiitu jël première kon yàlla teel naa wane jëfam ci melokaanam ci ab dëkkam ci ay jëfam ak doxiinam ak bëgg ko nit ñi bëgg mu ne waaye ni ko yàlla gërëmee ci àdduna ba ñëpp teg ci seen bët ëllëg yowmal xiyaamatul akbar lay raw ci gërëm yi ko yàlla gërëm وينك ويكن بوين نكون بكسنا بكسنا بكسنا ورضا والفقر تبشرة قد حاز ابنك ما لم يهب أبرار غاتشا غلاما يا سانيا باكو يا ام نامي يا سانيا ييكتيكو مبولم نو غاي باخي دون ووديكو وور يالا ديف نكو سا دوم جيلي احمد بامبا با تخ مون الى يقاد الله ما لم يكن ولا يكون ابدا لممكن كون سانيا باكو بو فيكون كين كولا دي ييكتي لوخو نا لما defe naa bu yëggatee ne am ci man la ku tedd ki jaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon da nga xam ne yayoo na kañ ak bakk kon bëgg sana wali doo wal faqri tabsiratan qabla haza ibnu ki malam yahu abrar li gaa yi baax yi lamboo wutoon sa dooma ko lamboo muy Xaadimu Rasuul soxna jaara nekk borom melokaan woo xam ne ku réyub cër la ku bariw doxin la ci nu ngoo wéetal yàlla ci nu ngoo jotale ci nu ngoo liggéey daqoon rot root daqoon taxan daq jangale muñ gëna rafet jikko nga xamne rafet rafet jikko man bopam di top lu doy du xaj du sakk gi sen seen njaanatullah nga xamne ni ni tar bi mel ci melokan non la jikko ji mel mom soxna jaar nga xamne jikko ju rafet lam ci aw ak jëf bari bërepp yo xamne dox doxinam feeñ na ca mooy digganteem ak Serigne Touba léegi sëñ Mame Mbaye Guèye ji bi muy jàng jàng na ko si ab nettali ko mu ci bënn googu ñu sànni woon sëriñ bi ci kabam waaye néeg bii ñu téye woon sëriñ bi ci ndakaaru soxna jaara fekk na ko fa di ko ñaax di ko dolli ay daara mu nekk boroom taxawaay boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xam ne صالحة خير من ألف رجل غير صالح جن جيجن جو باخ مو گن جوني غور يو ساگن جيجن جو باخ يي نونو جو خامني نياتا يون لا سيغن مكي مور سيلي گرم سخنا جا دافنا استوار يي ناتلي دنج لاي واخ نلا تيناو ساكيت تي خورو مكي ngalawli taw bi soti ko ci kawam ba fajar ngir ndigalul sangam ba ci teyel ma ni ma ñew waaye xam ngeen ni yemuloon ca loola ci bëgg yàlla geeg baax géeg jikko yu rafet maam Samba Diarra nee na waxtu sedd ak waxtu tàngoor moo mas a nan la ci soxna Diarra jëfe mu ne bu waxtu sedd masaa ñëw soxna Diarra di wut mat wut ay lekk yu neex di ko jox mag ñi bu jamono tàngoor ñëwee mu jël ndox yu neex di leen jox di leen jox ay ëpp mu ne amul kenn ku mas a am yitte. wàcc ci ëttub soxna jaara ba di sakku te amoo yow la ngay wut fa moom kon jëfam moo ko may doxin wu sell woowu mu doon dox ci digganteem ak sëriñ Mbàkke moo doon sëriñ ba keroog bi mu génnee àdduna ñu denc ko ci poroxaan lan la wax dafa jël loxom teg ko ci bopp soxna jaara wax ne giñ naa ci yàlla ne fii alquran lañ fi denc ndax jikkoy alquran ji mu yor ak melaw alquran wi mu yor ak doxinu alquran mi soxna jaara yor ci dox yi doxinu diine rek ci jëf joo xam ne jëpp ju ju mat la loolu it tax na ba Serigne Touba ci boppam bàyyi xel melowoowu soxna si mel mu daan ñaan di sant ñu di ko ñaanal soxna jaar daan yónnee ñuy dem di ko ziyaare jël poroxaan barab bu soxna jaara ji nga xam ne bérébu ñaan la boo xam ne képp ku fa teew ànd ak xol bu sel ak yéene bo ñaané suñ borom nungul la ngir borom jëf ju reey ji fanweeri at ak jet ni mu gatté ak ni so jaara jamono ci jikko ak melo ak doxine ta l'islam yag nañ ñoo li jigen ju bax yag ñoo wax jigen ju am taxaway waye jigen ju melni soxna jaara ko jafé la waykat bi nee na mësta tooñ kenn walam tu mësta kenn mësta dal kenn mësta kenn kon daan na képp ku ko gàcceel nag wala nga jéem koo yett nag wala nga tuumal ko wax ju jaaduwut nee na yaa ngi ci wax joo xam ne dara wóoru ci loolu soxna si doon dund muy melokaan woo xam ne jigéen ni lislaam ju mel ni moom ci àdduna di ko jàngale lu jafe la ku yàlla may tawfiix yi sëriñ bi jaar fi yow loolu doy na ngëneel ndax du ay càqan ku mel ni cheikhul xadim ka doon ak fa mu ne ak fa ko yàlla yóbbu nga xam ne amul kuy dendaleeg moom maa fil barriyati man jaay yu mathiluhu ilal kasuuba lasi yahwil ka abati boo doon laaj ki daq wax lu dul dëgg ci adduna mooy boo ku na waxoon ku mu doon mooy ki wut ku muy dendaleeg sëriñ bi sëriñ bi maasa muslam te du am loolu sëriñ Mbay Jaxate radiyallaahu taala anhu kon mu mel ni jaar googu jaar ca moom te sëñ Tuubaa doon model bo xamne jëm jo xamne don xetala kon bo xamne histoire musul andi ku melni mom te kenn xamul lim lambo lam yadri insun mislahu fi ma hawa wal kullu hara li sha'nihi al maktub mbindef xamul kat moy seigne touba te kenn xamul lan la seigne touba lambo kon lan la ci do ma meuna xam moy la ca feñ ci lu néew ndax waxal na bopam na xaabat maqami an siwal baqi karim wa annani abdul qadim la yarim sama maqama faduna ci mbolem bindi fi kudul yalla du rasulullahi xamul sama daraja xamul sama maqama man Serigne Touba Serigne Touba mo xuus ci mbandingum aduna ba jall amul ben gak amul ben tash lu aduna wëlbatiku wëlbatiku lu aduna safano safano lu non bari bari bari bari kenn mënta gàkkal sëñ Tuubaa zéro faute salim min al afati jumlatiha ko amul benn gàkka ngi noonu Cheikhul salim salim min al afati jumlatiha amul benn gàkk amul benn taas ci melaw biir aw melaw bitti du gum jur du gum yar du defar du lu moom léppam la yàlla sellal salimi kullu min danas bihi odduwunaa xanas وفاق خدمه انس هو امام الخدمي مو سيت ويتي اب غاك فيت تاس ما سيغ باي جاخاتي نيناكو يا سيت ولس مسولا دوخ صاح فو تاك لو بون سيتال مانغيل يالا مان مي تاك توبي ديفو لو بون مسولا ديف بن بيس لو ور توا جودود ياو ديس نف لف توبي كين مسلا جوخ يالا حقا بن بيس نارا ياو غينانه غينانه واخ جي سوخلو توبي yaa xëy na domm ngirum yoneen ba tey wéye wéy ba yegg rëkk nga del si yóbbu kuy tuubi moo tax ku wuuteete ak yow kooku am tulu yiw mboolem ku jóg mooy la tey moo def lu jot tuubi moo sedd ab xol te dal am xel te buuri gëtit te doy sëriñ sépp ak yéefari kenn yëpp sëriñ si sëñ Tuubaa leen doy buur yi sëñ Tuubaa leen doy yéefar yi ñëpp te kenn yëpp amul kenn ku yëpp sëriñ Tuubaa kon soxna si liggéey loolu yàlla jaarale ko ci ku ne amel na ko njukkal ku ne amel na soxna jaara njukkal ku ne war na caa jëf kenn ku ne war naa xam ne tey amoon nga yéene tudde soxna jaara doom ba noppi jébbal ko sëñ Basiiru Moor sëñ Basiiru moom moom sëñ Moor soxna muy taw borom sàmm nee na tudde soxna jaara doom de am na solo ndax ku ko tudde doom ñetti fan yi bàmmeel dana la rom te defe naa ko xamoon diggante Cheikh Jéeri Walan Sougou ak soxna Jaaratulaay Maam Mariama so xam nga lan moo xew ci moom a mbir sëñ Jéeri ku mas a am muy jigéen soxna jaara la koy tuddee mu dee góor mu tudde ko Xaadimu Rasuul kon loolu xam na taxawaay bopp kon ku ne war a jëm ci soxna jaar ci sa melo ci sa alal ci sa jikko roy doxiinu soxna jaara jël ko comme booy roy xam nga Sénégal léegi la ñu am bis bu ñu tuddee Euh, bisu ndey journée de la mère moo ne li baaxoon te bis yooyu mooy ñu jàngale ci soxna Jaara na am na ci Sénégal jigéen ju am fanweeri at ak ñett dëkk fu ñuy wax Poroxaan di way juru ku man ci gaañi Ahmadul Xadim ñu ne la luy jikkoom nga jàngale ko waaye dañuy génn ci tele bi kok boo ne jàkk kanam gi xam ne kii yàgg naa def lu mu waxut ñu naan roy leen ci meer yi loolu nees koy royee booy roy da ngay roy ku def lu jar roy koo xam ne boo paasee tuuti ci ginnaaw lañ génn ci yow mënee su ko gis nees lay royee loolu soxna jaara ngay indi teg ko bu leer yàlla fay ko jëf ju mat tey jii boo demee ca poroxaan gis loola boo demee feneen gis loola boo demee feneen gis loola adduna bi yëpp foo tourné fekk fa ay daayirey maam jaara fekk fa soppee maam jaara fekk fa ñuy liggéeyal maam jaara moo ne nañ ko soppe ci jëf njariñ la leen di jural te boo ko soppee ci ci jikko ci di ko roy mën caa jariñu ak a gàtt aw fan ci zayir mbokk yi ak a gàtt aw fan fanweeri at ak ñett fanweeri at ak ñett te nga jommal jamono ci jëf loolu ku ne war na caa roy di ca jëf nag boo toogee ba yàq nga xam ne tey kat waroon nga man de bu fi soxla si nekkoon naa ko yàkkal ndax kat da ngay takk soxna indi ko ci kër gi mu fonk sa yaay nga ne ah man de sama yaay ku ko fonk ne fi waaye ku ko fonkul génn fi ki may jàmm di cheikhul khadim kat ne moy way jurom nak defena ah koko yeyo nak yak ak yebbi ak lëngéeyal koko jar jeli piis koko jar jeli lal koko jar jeli batla koko jar jar or diko jor ngir tay bu la lon jàmm ba nga am liberté njabotam taxaw wo taxaway doo ko man kon kenn ku ne warna taxaw ci jeufal soxna jar maam maam Birame Moussa loolu nag Cheikh abdullah taxaway buri bi mu taxaw loolu melokaan wu rëy la mooy ñëw jël bis boo xam ne waxtu wu ne da cay jàngale ñuy jëfal poroxaan di liggéeyal soxna jaaratullahi maam Mariama Bousso taalal kon euh, ñoo ngi sant bu baax kilifa yi di leen gërëm soxna maam Fatim Mbakke Tiwaawoon moom Cheikh Abdou Latif maa ngi koy nuyu bu baax di ko Baye Fallou Maam Jaara di ko ñaanal yàlla di sant yàlla bu baax ci jataay bi di gërëm di sëñ Abdou Lahad noo ngi lay sant moom daf nuy soññ di ñaanal bu yàggul rek jawrin mi ak sëñ Abdou Lahad si la yàlla na ko yàlla doole ay leer la yónni ab cadeau yónnee nu ko ngir soññi ci ak ñaax ñu ci wax wu ne mu ñëw ci nu nit dinu dinu dinu dinu ñaanal moo tax tey jii bis bi duñ ko woon yitte ju bari ak lu ñu mën a xaar taxoon ñu sàkku ci moom jataay bii mu defaleel na ko nii soxna yaat yi maa ngi lay nuyu bu baax soxna maam Faty sii di jërëjëf maa ngi ciy wax ak Serigne Cheikh léegi bu ne Serigne Blaat ñu ne eggale na jumaa jàkka wala ñu ne defar nay armeel wala dimbale nay nit laa wa loolu mooy war warteef loolu nag yàlla yàlla gën laa dëgëral sa maam si laat nag moo waxoon ne ku la dàq juttu la lu mu for sànni la te kuy daw di gestu doo sori Sénégal moom da ngay fexe ba lu waaye di wax na koy wax waaye yóbbul gestu ndax doy na baax sëñ baay Abdou Lahat jur sa baay doy na doy na boo doon defi carte ka électionné lu waay teg boo tegee sëñ Abdou Lahat day sa maam nga gañe kon leneen loo ca dolli day daal di ëppaat kon maa ngi lay sant di la jaajëfal bu baax soxna Seynabou Thiam moom sëñ Abdoul momit sama Jigen bu bax la ku bëgg señ bi la yalla yalla gën koo jàppale soxna Kiné mais ñoo andon dem Makka soxna ki Cuun ciun mom na sëñ Abdou Samad yu dem Makka mu ñu ci bu bax momit nang koy sant ku bax la te yiw kon ma ngi nuy njabotu señ Afi ñang gi fi ñak yépit yëpp it sox ko jaaree ci Seeb Lahat waye njabotu soxna Marème ak Kunte gi diko ko señ fallu Silla momit mu bax momu ak Mbacké njaboot gi fi teew yëpp njabootu sëñ Fallu soxna ñoo ngi leen di gërëm baax sëñ Cheikh Oumy noo ngi koy sant te di sakku mu ñaanal na bu baax te ñaanal ko moom sëñ Cheikh Oumy sëñ Fallu li bëgg ci sëñ Touba yàlla na am li sëñ bi bëgg ci moom yàlla na am ku bëgg sëriñ Touba da cay tàggoog sagoom di la ca ñaanal di la ca soj kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf sëñ Cheikh Mbacké yooyu noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm ku ñu war a jot lim nuyoo te tudd ñu ko da nga nu te xam ne nuyu nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul xarraa wa inni ahmadu